Euh, waxtaanee am na sax jàngoro yu ngeen ko gën a jagleel urologie buñ ko dee wax euh, mënees na ko tekkee noonu bu jigéen ñi euh, yittewoo gynécologie góor ñi ñoom urologie mooy seen mbir noonu la. waaw loolu benn pàcc la ci urologie bi ndax gynécolo jigéen ñi tamit dañuy soxlee uro urologue waaw ni nga ko waxee depuis démb ñi ngi def benn conférence internationale ci urologie conférence bu ñuy permettre ñun spécialiste urologie yi. Nous avons fait xarit yu jógee fépp ci àdduna États-Unis France Angleterre ak Afrique yëpp ñu daje pour waxtaan ci formation urologie Nous Dakar Mom, plaque tournante la ci formation médecine donc hydrologie, mënul jàkk ci loolu donc euh, rencontre internationale plus de 300 participants Je suis le secrétaire euh, général adjoint de l'association sénégalaise d'urologie donc maa ngi fi ñëw l'Association association Le professeur Alain est le président l'association sénégalaise d'urologie Bobo donc euh, congrès bi mi ngi permettre ñu waxtaan ci kàllaama formation yi ci formation bi ci spécialité urologie et ba pare aussi opérer opérer ci ñaari fan yi ñu génn lundi ak mardi opéré nañ ci hôpitaux yu bëri yu mel ne principal Dantec hôpital Idrissa Pouye opéré ak technologie yi mujj yu mujj ci urologie waaw. Mhm. yan jàngoro moo gën a fës euh, ci euh, urologie waaw bu ñu urologie nit ñi dañuy yaakaar ne prostate moo ci ëpp donc prostate la ñuy ëpp lu ñuy dégg waaw effectivement feebaru prostate moo ëpp lu ñuy faj ci urologie mais urologie rek yemul ci prostate problème mu rein aussi daf ñuy intéressé dañuy faj euh, rein problème mu rein problème am doom comme ni nga ko waxee gynécologue yi bu ñuy xool jigéen ñu mënul am doom góor aussi ñooy topp góor ñu amul doom euh, problème mu rein lépp luy problème mu gaanuwaay saw aussi urologie moo koy toppatoo donc du prostate rek am na rein am na yeneen feebar yu bari yu ñuy toppatoo ci spécialité boobu. ah feebar yooyu noonu ci Sénégal est-ce que mbir mi jéggi na dayoo wala euh, fu mu toll ndax nit ñaa ngi faju wala bokk euh, ñu ngi respecté la nga xamante ne moom mooy digle yi. waaw feebar yooyu euh, dañu bëri. Mhm. am na ñu bëri ñoo xam ne duñ ci bàyyi xel mais boo xoolee tey liñ ñu naan cancer prostate mooy cancer bi ëpp ci góor ñi ñu bëri xamuñu ko bàyyi ko wax bàyyi ko xel. Euh, bu ñuy wax dañuy tudd yeneen cancer yi mais ñun xam nañ ne ci góor cancer prostate moo ëpp ci cancer te cancer prostate boobu dafay sonal góor ñi donc ñun suñu rôle mooy dañuy sensibiliser tout le temps population bi ci à partir de 50 ans am na ay problème mu gaanuwaay yenn problème saw saw yu bëri yu xaw commencé jafe loolu il faut nga ci bàyyi xel ñi ñi nag dañuy yaakaar ne loolu âge bi la te souvent loolu day fekk prostate bi commencé na di di la sonal donc euh, faire bu mais nit souvent duñ ci sensibiliser motax ñu ci wax waaw di ci wax te population bi heureusement de plus en plus ci sensibilisé, xel di parce que niñ koy waxé les bo mais souvent bu féké da nga yéxa chirurgien urologue est-ce que walu prostate na na Ah. bëri na trop waaw loolu moom bëri na trop euh, te xam jàpp nañ ne sax ñii ñëw hôpital am na ñu bëri ñu dul ñëw ñoo xam ne dañuy am problème mu prostate am ni ma la ko waxee am problème mu saw yaakaar ne c'est normal li ñu naan fatalité tubaab cest à ak âge bi ngay am problème mu saw dafa war danga war a di jóg lu bëri guddi wala booy saw doole bi nga gaanuwaay bi doon génnee di wàññeeku lu normal la parce que at yi bëri na alors que loolu souvent prostate la mais boo ñëwoon tey suñu service yi da ngay gis ne euh, feebar bu bëri la parce que ñi ci hospitalisé dafa bëri donc effectivement bëri na na trop. feebar yi lu koy lu koy joxe feebar yi nga fi tudd yëpp tey euh, soxal seen liggéey di urologie. waaw bu ñu jëlee lu mel ne prostate daanaka euh, organe la boo xam ne góor yëpp ko am boo juddoo da ngay am prostate parce que dafa am rôle bu muy joué ci maniou bi prostate Bobu, donc souvent sax ñi ñëw constatation docteur dama am prostate ñu ne du dama prostate du dama prostate mais prostate goor yëpp koy prostate Bobu mooy euh, participer ci formation maniw goor donc bo juddoo rek am nga ko te plus à yok di yokk plus prostate bobu di yokk ci volume te comme boo xoolee ci fi mu nekk ci góor ci yoonu saw la nekk bu volume day tànc yoonu saw bi bu ko c'est normal que à partir d'un certain âge bu un volume ngay saw muy jafé mom nek deugantan donc bo volume, bi fi ñaan juste bo nak bi tuyo un volume, saw bi ci ci ci juste ci la nek daf ko wër dafa wër donc euh, bu bu volume day dem ba tanc yoonu saw bi nga instant ngay saw muy xawé a ngay saw du jeex ngay jàbbante ci toilette di guddi nga gis na yow bi ngay nek xalé ans da nga un teud ba suba muso nga commencé di tëdd guddi di yeewu 3 4 fois loolu ay mandar ne prostate bi commencé na et malheureusement nit ñi duñ ko xam duñ ci bàyyi xel donc feebar boobu daanaka li ñu naan c'est une fatalité mais heureusement du góor yëpp ay am problème yooyu mais message bi ñuy wax mooy souvent à partir de 50 ans même soo yëgulee dara góor dafa war a dem gis urologue mu xool la même bu fekkee commencé gul indi ay jafe-jafe saw mën na joxe li ñu gën a bàyyi xel mooy cancer boobu te cancer boobu buñ ko bu bo ci boo demee di ko bu féké gisee joxagul ben signe ci yow bobu lañ koy mëna a faj mais malheureusement liñu sét moy mooy cancer prostate bu commencé ba joxé ay signes malheureusement souvent xawna na avancé tuuti te faj bi day gëna yéx kon kay laataa ñoo egg 50 ans sax war nañoo commencé dem ci kër docteur. amna na sax recommandation yu mhm. naan sujet noir parce que seetlu nañu ne cancer de prostate bobu ci noir la ëpp que ci tuba ci les sujets blancs. que sax 45 ans ci ci ñu ñu ñuul ëpp. ci ñi ñu la ëpp. Mhm. que ci nit ñu weex ni motax sax dañ ko wàcce ba normalement ba 45 ans à partir de 45 ans góor bu ne war chaque année mu dem ci urologue mu saytu prostatam mhm. même bu yegulé dara. yéen ngi wax tane ci sen dajé bi démb ak léegi itam beneen jàngoro mooy euh, góor bu jaasir lola est-ce que amna yu ñu mëna fajj amna yu mënul fajj wala mëna ñoo fajj yépp. waaw loolu ça dépend ci lan moko waral dañu dafa dafa commencé na bëri commencé na bëri légui ci aduna bi goor bu tok jaasir yéex a am doom parce que amna facteur yu bari ñu incriminer sétlu nañ né dañuy dem ci ci étude ñu def que suñu mam yi ñoo ñu gënoon fertile que que que légui donc ça dépend bo ñëwee ci urologue bi mom bu est-ce loolu lu wér la. lu wër la am nay recommand am nay étude yu ko woné yu woné né suñu mam yi ñoo ñu gënoon fertile fouf même ci analyse maniou légui dem nañ ba finalement maniou maniou liñ ko doon considérer mu normal ci année 1980 par OMS légui dañ ko wàññi dañ ko wàññi paramètres yi par exemple boo xoolee maniou góor daa am yenn paramètres yu ñu ci xool pour ne lii dafa normal wala jaan yi dafa am benn nombre mu war a toll daa am pour pourcentage bu bu bu dul gaaw a dee pourcentage bu yëngatu loolu yëpp OMS dafa dem ba finalement il y ko wàññi loolu mooy wane ne effectivement que suñu maam yi ñoo ñu gën a fertile. léegi li ma li nga laaj question bi mooy boo demee ci urologue bi daf lay xool am na yoo xam ne ay feebar la yoo xam ne mën nañ ko opérer maniou bi defaruwaat ba nga am doom am na yoo xam ne mën nañ ko xool. def ko infection par exemple jox lay antibiotique ba manu bi yokk ni mu wara mel ba nga am am effectivement am nañu ci faj ñu am dom amna na na xamne euh souvent am na ben lu bess du ñew liñ nane procréation médicalement assistée moy que manu bi su ko, ba baax a baax baax mën nga dem au niveau du laboratoire ñu xol nu ñuy defaree manu bi ba dimbalé la pour nga am dom lolou médecine mo koy mo koy dimbale comme niñ ko waxé procréation am dom bo xam médecine mo lay jappalé donc pour résumer dal, ça dépend bu la urologue bi xolé li ko waral mais fertilité bob nga nga né sunu mami ñoo ñu ëppoon fertilité ñoo ëpp fertilité ñi ñi léegi euh, lan mo lan moko ko ci étude bi. waaw ci étude bi xam nga. yan ñooy facteur yi tax fertilité bi ko waaw facteur yi ñu ñu incriminé moy déjà euh, première chose moy la chaleur tangor bi ñepp xam nañ ko aduna bi légui y a un réchauffement climatique. ben affaire aussi amna ñu les perturbateurs endocriniens les produits toxiques y a plus de toxicité toxicité aduna bi légui dafa yok donc ay ay ay yu njot la yo xam dañ ne globalement yi ñoo war ne aduna bi euh, mani wu góor amatu qualité bi amone peut-être il y a trente quarante ans. produits toxiques cigarette yi. wala lan cigarette c'est l'un des facteurs principaux. cigarette mom ci facteur bu important la ci yak mani cigarette mom c'est c'est incriminé c'est c'est xam nañ ko c'est clair mhm. waaw. am nañu nan tam euh, colko yi tam ci la manam euh, bu la. Euh, njiit laayam am na nu muy mel loolu tam mën naa ko indil gàllankoor ci euh, urologie loolu est-ce que loolu lu wér la itam. waaw loolu day rejoindre li ñuy wax ci tàngoor bi c'est-à-dire que tàngoor boobu ñuy wax euh, effectivement am na études yu wane ne fi ñuy defaree man bi mooy ci suuf bëggul trop tàngoor bu bëri donc effectivement am na ñu yenn étude yu démontré que col ko yu serré trop wala yi nga xam ne day tax air bi du mun a jaar baaxul ci ci ci ci maniw. waaw ah, ñàkk a jiital itam xam nga day compliqué. waaw loolu aussi <laughs> solo mais peut-être jiital lu xaw a ample tuuti rek loo xam ne. mi ngi noonu euh, euh, colonel euh, lieutenant colonel Racine Kane sunu gan secrétaire général adjoint société sénégalaise urologie bu dee yéen ñi xam-xam boobu ci urologie est-ce que am ngeen lim bu doy ci bërëbu fajukaay yi ba rendez-vous du jafeek rang yi du metti waaw loolu moom sénégalais boo wax rendez-vous danaa la rendez-vous yi day sori ci hôpitaux yi loolu waaw euh, ñi ngi ci ni ma koy waxee bi may commencé formation urologie daanaka urologue set Dakar rek la amoon léegi tey boo demee région boo mënta dem ci Sénégal di nga fa fekk benn urologue donc euh, au niveau de l'université ak euh, tous les collègues et tout ça ñi ngi farlu vraiment ci formation boobu ba tey vraiment urologue yi en en en dix vingt ans yokk nañ bu baax a baax a baax mais du doyul ñi ngi encore di former

côté bobu la bëggone insister surtout effectivement euh, bo xolé ci thème yi euh, congrès bi chirurgie mini invasive lañ wax urologie dafa di spécialité bo xamné da fay évoluer tout le temps et tay dañu xol né spécialité bo xamné opération yi ñu ko défé bu ñëk ba c'est-à-dire di da fay commencer di ku bëri bëri ci spécialité boobu moy chirurgie mini invasive bob. c'est-à-dire que légui tay ay matériel yu dernier cri amna fi yo xamné tay ne dañu doon dem ba ay France États-Unis amna tay Sénégal légui dañ lay opérer te presque duñ xoti yaram bi waaw dañuy opérer ba xotti yaram bi loolu. li wax laser. li wax laser. laser de xam nga dafa xew. endoscopie <laughs> dafa xew ça tombe bien. <laughs> donc euh, loolu boo ko defalee malade bi ni mu doon hôpital du fa et puis complications yi du bëri matériel boobu aussi mi nga doon wax euh, vraiment am effort yu rëy rëy ci def dernièrement ba ay région yu bëri laser boobu am na laser ay boo euh, am na région endoscopie bi également opéré sans xotti dañ koy def ba ay fatigue ba Ourossogui te té lolu c'était vraiment inimaginable il y a quelques années donc vraiment matériel moom du doy man urologue la lo ma jox ci matériel ma jël du doy mais vraiment effort yu bëri def nañ ko ci hôpitaux yi dernièrement. mais est ce que le personnel est bien réparti sur le territoire. waaw xam nga ministère de la santé ak ñi yor formation bi lolu dañ ci bàyyi xel dañ ci bàyyi xel trop trop trop tey mooy lu lay wax ni euh, répartition bi yaakaar naa ñu ci bo demee tay ba ñu tegal la euh, urologue bu nek ci région Sénégal yépp moy que vraiment ñu ci ciy bàyyi xel tay tey euh, région bo dem am nga mën nga am urologue amna sax région yo xam amna ñaar ñet urologue té ya a quelques années de cela néna la da nga urologie peut-être Dakar la yemoon ak Thiès donc répartition boobu vraiment yaakaar naa ñu ngi ciy xel. Hum. mu di ci wàllu médecin yi mais est-ce que ci yenen personnel de santé ay techniciens supérieurs yeeg yu ni mel est-ce que ñay yëngu ci walum urologie bari nañ parce que les euh, bi bidou, médecin seulement. Oui, xam nga urologie en fait spécialité ou particulière Dans les médecin yi ñooy def. Euh, spécialité bi amul technicien par exemple en urologie. mais ñi leen di jappalé ci wàllu. wa amul technicien en urologie comme par exemple ophtalmologie wala anesthésie amul donc un un urologue pour mu liggéey ci service am moom en tant qu'urologue urologue li mu un infirmier d'état bien formé et un infirmier donc loolu daanaka hôpitaux yi am na fa. Mhm. Euh, am na auditeur buy laaj ba xam euh, sëy bu bëri ci góor mën na ko indil jafe-jafe euh, ci awraam ak la ko wër ci urologie. waaw loolu amul ay croyances populaires la woon rek ay croyances ñu naan que boy sëy lu bëri wala mën na. andi ay déedéet déedéet loolu amul amul.

bon tout de la que en fait xam nga ak euh, at euh, di nga dem ba jurukaay euh, li wax commencer parce que nañ boy jël ay at boy accouchement yu parce que ci bir yaram organe bo gis dafa ligaments donc avec temps bi bu muscle yi xam nga boy donc si euh, jurkaay mën na ci euh, vessie mën na trouble la statique pelvienne te mën na am répercussion ci gaanuwaay beeg saw beeg jur beeg yooyu trouble la statique pelvienne. Mmh, am na loo xam tam la ci réew mi ci est-ce que yéen da ngeen ni faj loolu. lu bëri la bokk na si suñu liggéey lu affaire ci euh, parce que urologie am na domaine à côté bu ñaan andrologie donc loolu vraiment suñu consultation dañ koy jël en charge Mhm. Euh, gis nañ ni nit ñi nag euh, pajum cosaan bi leen gën a farataal ci loolu lu ngeen ci wax yéen euh, docteur yi. waaw bon nous on reste dans notre domaine li ñu xam mooy li science wax donc ku ñëw suñu consultation côté côté recommandation scientifique tële góor li buñ la xoolee en fonction de li nga am ci côté boobu la ñuy orienté traitement bi donc euh, domaine bu ñu maîtriser wul topp la ñun domaine médical bi rek lañu lañu maîtriser dal maîtriser daal. Mhm. est-ce que euh, paj mi yomb na wala am na ñoo xam kenn mënu leen faj. il y a toujours des moyens ça dépend ça dépend comme médecine moom ça dépend toujours ce stade te stade bi nga nekk euh, ci côté télégóor bi ngay wax xam na waaw waaw mhm. ça dépend vraiment ci stade bi mais ci côté boobu am na ay traitements selon les étapes stade boo tol rek am na traitement buñ la mën a bu la buñ la proposer même ci côté bobu non télé go bobu amna tay ñu dem ba defal ci atelier yi ñu def ni placer leen ay prothèse prothèse moy stade bi nga xamné vraiment stade bi nga xamné euh comprimé yi mënuñ dara ci télé bi piqûre yi mënuñ ci dara. dem nañ ba loolu mooy posé. waaw posé la prothèse donc def nañ ko ci atelier yi fi ci opération yi ñu def ni pour permettre loolu moy stade vraiment té am dañ koy def. Mhm. ñu ngi lay gërëm bu baax euh, lieutenant colonel Racine Kane secrétaire général adjoint mbootaayu euh, fajkat yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu urologie ñu fàttali ni euh, ci démb ba léegi ci Ndakaar yéen a ngi amal ab ndaje ab congrès international di waxtaanee jàngoro yi nga xam ni moom moo soxal urologie di paj mu am solo ñu ngi lay gërëm. di leen ñaanal njeextalu jàmm seen ndajam tey mii. maa ngi leen di fay di leen gërëm ci invitation bi ci plateau GFM. merci pour la jërëjëf jërëjëf Georges euh, jërëjëf soxna.